Salima to sawa ci lo nek yang ci jam alhamdullilah ñu ci na tay suba yëg naa li xaw moo tax ma la xaw ma la pour wax la ne maa ngi fi eh eh eh eh Modou comment tu vas ça va ah lii moom dafa dal nga ci dal nga ci naka foofu nag ba yaa ngi ci jaamu en tout cas yàlla ku baax la xoolal rek li laa la waxoon ni la du ci def dara lo xamne duñ ko rëccu waye yalla woné né ni mi ngi régler lépp sant yalla bu baax baax wa ça va ça va alhamdulillah yegg si naa si jàmm yegg si naa mais j'espère que sa xel nekkul si comme jëlaat faatu ak lu mënti am leen la bëgg nga xam ko mooy faatu mënu soppeeku mënatul soppeeku yàlla daal loo koy bàyyi la du ci sa man ya la amé yalla moko doxale kon nak dalal Fatou contacté na ma d'ailleurs gis nga sama waxtan ak mom ci facebook bi ba taxna di ci des man ak yaw la mais pas mom te dalaluma ben yoon xelam. maître man mombu bu bëggee dégg dëgg rek. damaa ñëw pour divorcer carrément amatul dara loo xam te ni des na sama diggante ak moom ba tax na ma lay ñaan yow lépp fii la la fekk gis nga bu baax li ma jot a tax nag ma bëgg nga bàyyi mu sedd bu ci jéem a def dara. ah Moodu man defar rek moo ma taxaw na jóg waaye décision bi moom ci yow lay jóge et une fois de plus bienvenue Moodu ndax xam naa dama bëgg bàyyi ndax dama bëggoon tëdd dal tuuti ndax dama xaw a soob. ok maître dégg naa la man mi sax dama sonn si ranger bagage yi laa nekkoon nii nii nii dama bëgg a noppalu mais encore une fois et bonne nuit après dinañ déggante naa def